Thank you. Sénégal 7 TV dans votre entretien du jour tey nañu am mbégte eh, nara sekk ak waxtaan ki nga xamante ni moom moo di l'activiste Mollah Morgun ngir mun a am xalaatam ci li nga xamante ni moom moo di tolluwaayu réew mi rawatina fa ñu jëm ni ki dimanche ñu war tànn ki nga xamante ni moom mooy nekk suñu cinquième président lu ñu mel nag depuis lors yéen ngi suivre li nga xamante ni moom moo di campagne bi ak lépp li nga xamante ni rek woon na ci comme actualité lépp tey dinañ ko waxtaanee euh, ci suñu entretien du jour laataa ñu sore nag ci waxtaan bi euh, nuyoon teeg ak moom suñu gan bàyyi ko moom it mu moo Sénégal 7 yi di la nuyu di la bàyyi nga nuyoo tey di la euh, déwénati ci weeru koor bi ñu nekk. Eh, di leen wax euh, salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu di leen fay euh, di leen bëggee ñëpp leen wax ni Ramadan Mubarak di leen wax déwénati baal leen yàq baal lañ leen yàlla ñu yàlla boole jégal fekk ko ay déwéni déwén. allahumma amiin alors foofu. waaye sant yàlla alhamdulilah. sant yàlla bu baax. Euh, la euh, fi ñu dooree waxtaan bi laataa sax ñuy ñëw ci li nga xamante ni moom moo di campagne bi ak lépp li ci candidat yëkkati comme euh, programme ma bëgg d'abord am sa aperçu ginnaaw ba ñu ngi doog a jàkkaarloo ci vague de libération bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko dooree ko ci détenu politique yi euh, ak it ñeneen ñi nga xamante ni sax ay leader lañu ku ci mel ni Ousmane Sonko ak Diomaye ñoom ñëpp ñu bokk ci vague bi nga xamante ni euh, génnee nañ leen euh, tout récemment ci kaso yi laata même ñuy voté li nga xamante ni moom moo di loi d'amnistie bi gisoon nañu vague de bi plus itam bi ñu validé li nga xamante ni moom moo di projet de loi d'amnistie bi libération yi gën a wéy sax kii di Ousmane Sonko ak Diomaye si lañu mën a retrouver li nga xamante ni moom moo di la liberté. tout à fait ñu ñëpp gis nañ benn jour euh, Macky Sall commencé libérer détenus politiques yi et que voilà ça s'est passé comme ça ci kanamu ñëpp après mu voté loi amnistie bi ñeneen ñi mu génne leen je pense que ça montre juste que moom xam na lu mu def. amnistie moom foo ko déggee rek moom je pense que boppam lay amnistier parce que moom moo armé woon ay forces de défense et de sécurité ay nervi ñëpp gis leen ñuy tiire ci askan wi ñu jàpp ci ñu bëri dugal leen ci kaso bi ci ay naxasa xandang ci ay caaxaan ci ay chef d'inculpation yu ñu tagul fenn yu ñu wéer lu ci ay sos akay ay euh, mu dem ba nga xam ne xam na ne day dem donc euh, mu ne day effacer crime yi mais incha allah bu ñu jëlee nguur gi bu soobee yàlla dañ tagaat lépp ci loxo justice bu indépendante et moom dina ko dina ko àtte quoi. mais démb ci entretien bi ñu suivre ñu ñëpp mu def ko ak suñuy naataango ya nekk foofee ca BBC dégg nga ko mu ci li mu waxee moom jàpp na ni amul daray eh, njoom njoom eh, njuumte bi nga xamante ni def na ko ci magistère am jàpp na ni également lépp lu mu doxalee ci jamono ji nga xamante ni moo fi nekk njiital réew daf ko teg respect li nga xamante ni moom la ñu tëral ci suñu charte réew. waaw <laughs> ah, xam moom nag du yàlla du yeneentu yàlla rek moo dul juum ne douze ans nga ne juumoo benn yoon kooku moom ay waxi naxa sax xandang la jarul sax perte temps quoi parce que bu tompatee boppam ba xam ne nit la war na mun a xam ne warul am fitu taxaw douze ans ne moom deful benn ñombe quoi kon nit yi dee yëpp yàlla moo leen rey quoi kon booy yi nga xam ne booy bu doon dox parcelle policier bi tiire ko bal tiimale ko fetal ne ko tëll mu daanu po boobu ba léegi amul benn enquête loolu du dara quoi loolu donc d'accord moom moom nekk na dem rek après ñun nañ ko gérer na dem rek. ñu laaj ñu ko sax ba xam ay magistère am set naag baax naag na dem rek après nañ ko réglé. naka ngeen ko fas yéene réglé. parce que dégg nañ fi Ousmane Sonko ni ñoom ba ñu jëlee réew mi du ñu fayantoo. fa daf ne du ñu fayantoo mais dinañ jël lépp teg ci loxo justice justice mooy fayu. maanaam du du doon loo xam ni moolaa mooy jël fetalam di wër keneen ne kii moom moom ma attaqué di ko tiire non du ko def parce que bu boobaa boobaa moom mooy fayantoo mais dañuy jël lépp képp koo xam ni subir nga ay injustice wala subir nga ay euh, meurtre wala tentative de meurtre yow sa droit la nga dem justice nga porter plainte li nga xam ni bu fi Macky Sall nekkee def nga ko amul benn suite donc maanaam justice dina topp lépp man mii bu boobaa dinaa topp dinaa dem justice ci li ñu song sama kër taal ko tentative de meurtre te dinaa ci topp wut ay avocat reyante ci ba jot ci comme Macky Sall ñëw na fi ci magistère ba dem amuma justice ci sama famille bu ñu doon tenté pour rey leen donc bu boobaa au lieu ma jël sama fetal dem man defal sama enquête bopp dem di tiire ki ki def lu mel noonu dama koy yóbbu justice. loolu rek lay bëgg a wax. mooy maanaam bu ñu loolu ci toll parce que mosoo leen def ma a benn entretien ci jamono bi yëf yi amee ca Kaolack nga ne annoncé woon ni euh, jébbal nga yëf yi ci wàllub yoon kon da bëgg wax ni boobeeg tey amoo ci benn évolution. benn évolution bu ñu sama rakk bi sax. gis procureur bi def na ko demal sama secrétaire secrétaire bi ne ko réeral naa ko kayit yi réer ah, accord ah, ay kayitu suukar la daal na nga ko réeral nii secrétaire bi ne ko waaw mu mu woo ma ma ne ko wuy ma bàyyil ko tëjal ko bureau am da dem daf ko réeral kayit yi da ko réeral ah d' accord amul benn problème ñun bu bu ñu ñëwee dañ delloo kayit yi ci table bi day réer d' accord. ne réeral na kayit yi. billaay na mu kayit yi réer na ko d'accord seen enquête bi ngeen di kii yëkkati. dafa mel ni réer sa gis bu yaatu ci li nga xamante ni moom moo di campagne électorale bi euh, xam nga ni au départ nekkoon nañu lim bi tollu woon na ci vingt candidats. bi bi conseil constitutionnel segate ñu génne ci ki nga xamante ni moom moo di Karim Wade. Euh, ca mujjantal ba Rose Wardini également daal di teggi li nga xamante ni moom moo di candidature am démb également Cheikh Tidiane teggi na li nga xamante ni moom moo di candidature am Habib également teggi na tey li nga xamante ni moom moo di candidature ñoom ñëpp rangé wu euh, ci ñaan ñu ma lim ci ginnaaw kii di Diomaye Faye mais ñu taxawaneegum d' abord ci li nga xamante ni moo di campagne bi Diomaye di mené depuis lors ci ginnaawam euh, derrière ñu gisoon ci Ousmane Sonko ca départ ba tey ñu xaajaloo ku ne jël sa yoon ci wàllu wàllub euh, région yi Ousmane Sonko nekkee ca wàllu ba moom Diomaye également nekk ca beneen wet ga dio boobu noo ko gisee. duo infernal Euh, diwo de fëla donc euh, liggéey bi am na solo noonu la euh, tout le Sénégal est derrière eux tout le Sénégal est derrière ce projet boo xam ne moom nañ défendre ba toll fii bépp jeune bépp mag bépp sénégalais bëgg nga balaa ngaa dee gis luñ naan changement li ngay dégg ci yeneen dëkk yi te mosoo ko gis Sénégal am benn système 1960 ba léegi ay paa di ñu jiite ay suga daal di ñu jiite jël xale yi eh, teg leen tànk di leen bësloo seen yaram yi ak di leen raxasloo seen tànk yi donc loolu moo jeex xale yi ñoo kaj ji paan yeeg lépp na leen jóg leen ñu dem liggéey te ngeen bàyyi caaxaan bi du toog muy dox di jaaxaan di caaxaan muy loolu la ñuy dox donc ñoom campagne bi macha allah vraiment gis ngeen effervescence bi fu ñu dem doo aadi map ñëw matantente milliers dóor ay lacrymogène ne day résister taxaw leen ils ont soif de victoire soif de changement hmm. Sénégal je pense que à part par Diomaye euh, gisuma fi ku fay campagne daal ñeneen ñu moom gàtt ñeneen ñu ngi campagne toi gisoo fi ay caravane lay Anta Babacar Ngom ñoom Mohamed Boun Abdallah Dionne ñoom ñëpp ñu ngi battre campagne d'ailleurs sax parlant de Boun Abdallah Dionne démb ñu ngi doon véhiculer benn information selon laquelle euh, dafa feebar ba mu woon ci lalu hôpital loolee nag ñoom euh, si cellule de com bi indi nañ ci ab communiqué indi ci ay leeral ñu doon mel dara amu ci mais loolu yëpp yaa ngi koy gis ci candidat yi ay Khalifa Ababacar Sall et autres ay Amadou Ba ñoom ñëpp ñu ngi battre campagne kon bul ni Diomaye rek mooy campagne moo la Sénégal de Diomaye la fa moo fu mu jaar ñëpp yëg ay nit di màbb di ñëw te kenn amul kaar amul tiset amul sifflet lool loolu mooy campagne électorale campagne yooyu la ñu xam ñun fekk naa campagne Corée du Sud loolu laa fa gis gisuma ay bus gisuma ay chauffeur gisuma ñu ñu fay gisuma ñu solal ay ay donc benn campagne bu am Amérique am asi am am Europe am pune kenn kese moo ko fay def c'est le candidat Diomaye Ousmane Sonko ñeneen ñi nag waxuma ñeneen ñi moom dañuy taxawaalu moom à part pur pur day vraiment macha allah mais à part pur ñeneen ñëpp dañuy wëndaalu rek dañuy taxawaalu nii dugg seen oto taxawaalu yëkkati loxo benn romb benn maire koo yëkkati loxo mu yëkkati la nga yëkkati loxo mu yëkkati nga wàcce mu wàcce jeex na taak nga romb loolu loolu ñooñu loolu la ñoo dañuy dañuy tambaambaalu campagne électorale laa la wax li nga xam ne yàgg nañ ko gis ñun lu ñu wër àdduna fekke ay campagne électorale benn mo candidat moo ko fiy def moo xam ne fayul kenn wutul ay kaar joxewul xaalis joxewul cinq joxewul xartum joxewul tichet nit yi ñooy ñëw di reyante seen bopp ñëw kooku Ousmane Sonko Jomaay Fay la amul keneen. d'accord ndax da nga jàpp ne. lay wax nag ci expérience waxuma la nag ci euh, ñàkk xam xam luy campagne électorale. sincèrement fekke naa campagne électorale présidentielle en France fekke naa ko en Corée du Sud fekke naa ko aux états naa ko au Canada man li ma mus a gis. moom mooy Diomaye fay Sonko ñoo ñooy campagne électorale ñeneen ñëpp dañuy taxawaal rek. mais ndax da nga jàpp ni duo bi. Euh, Ousmane Sonko derrière Diomaye Faye ak slogan bi Diomaye mooy Sonko def ci bokk ci lu bëri li nga xamante ni daf ko ci contribuer maanaam tey jii euh, effervescence bi ñu gis euh, toole bi ñu gis derrière Diomaye ak yu ni mel da nga jàpp ni tey ji ausman Sonko ak slogan bi moom moo ko waral wala ndax dëgg-dëgg rek ki nga xamante ni moom moo di Diomaye rek moom moo moom moo ko waral parce que confusion wala bokk ay leeral mi ngi commencé di am ci wàllu bu ni mel Sonko du Diomaye et que di ni mel dañ ko war suuf. waaw mais balaa ngaa xam balaa ngaa euh, mbéj gémmiñu duudu da xam nu mu slogan boobu noonu man maa ko créé donc euh, sonk mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko dinaa la wax naan laa ko créé dama doon def live mooy jour bi nga xam ni dañoo rejeté la candidature de Ousmane Sonko bi ñu ko rejeté ma def live di wax gars yi nañ génn boobu jomaay jàll na mais dañoo rejeté léegi nag mooy ñi nga xam dañoo waroon dem di wuti pare parrainage ba parrainage sax amagul donc gars yi bu ñu ñëwee may live may leen di wax ne nañ dem tout autour bañ a toog di jooy soit ñu génn xeex wala ñu jàpp ci jomaay créer benn bouclier humain tenir ko soutenir ko pour mu jàll ñu bañ a accepter ñi nga xam ni dañ leen a yónni ñu nekk ci média yi di gëmloo gars yi ne benn candidature Pastef du dem loolu lank leen ko taxaw leen jaayante leen parce que loolu sax laa waxee ne parce que bu ñu seetaanee ñu éliminer bépp candidat wu Pastef éliminer Sonko éliminer Jomaay bu boobaa Amadou Ba rek moo fay des te boobaa da leen di dóor ba ñu bëgg a dee waa APR manipulateurs yi dagg Amadou Ba leen di dóor ba ñu bëgg a dee ñoo jox gars yi <laughs> xam nga ñoom ay manipulateurs lañ donc foofu noonu la amoon ay benn boy bu ma doon wax naan ma noo ñun ñi ngi xaar ndigalu usmaan Sonko ma ne ko amul lu ñuy xaar ci ndigalu Ousmane Sonko Sonko mooy jomaay jomaay mooy Sonko maanaam projet la ñuy défendre loolu ku la wax ne Sonko du jomaay xamul lu muy wax projet bi pro mun ko ak jomaay donc projet lañ toppee Sonko projet boobu deewul mi ngi ci jomaay kon Sonko mooy jomaay nañ bàyyi di expliquer luñ maîtriser wul dañ bàyyi di expliquer luñ fekkewul. yow yaa ngi may mayaale sax yaa ngi may mayaale sax exclusivité parce que man xaw ma woon ni xaw ma woon ni euh, slogan boobu ci yow la jóge man la jóge te nan la fa jógee gars yi ñoo doon wax naa dañuy xaar Sonko parce que moom boobaa éliminé nañ ko dañuy xaar Sonko pour mu wax leen kan la candidature ak nangam ak nangam boobu dara génnagul laa tontu benn. ci laa tontu kenn ku ma doon expliquer. yaa may dégg. oui maa lay dégg. Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko kaay leen ñu jàpp ci Sonko u Jomaay ko ndax affaire projet la donc projet boobu bu bu fekkee dañ laa dénk dara jox la ko nga dem ba nara ñu la bëgg a la bëgg a rey comme drapeau islam ñu balaa ñu laa bëgg a rey nga jox ko keneen pour drapeau bi bañ a daanu. kon dama ne kooku nga xam ne da ko faa jëlee mu jël drapeau bi jox ko keneen kooku moom mooy continuer relais bi. d'accord mais ndax kon kële mooy kii. oui mais ndax ci koo xamante lan lan la ñuy défendre drapeau la ñuy défendre. d'accord mais ndax ci koo xamante ni moo laa dafa bëgg tey gi diriger ce pays. Euh, jotul tamit mu démarqué wu euh, de son euh, leader di Ousmane Sonko parce que tey jii bu ñu ko falee dëgg-dëgg nag Diomaye la ñu fal mais ñu Sonko est-ce que du quelque part ñii di wax foofee la ñuy waxee parce que ku mel ne Anta Babacar également ah, moom tamit ci même lancé boobu la doon waxee bi muy lancé ay pic yi nga xamante ni moom moo di Diomaye Faye man la loolu laa bëgg wax moom mooy balaa ngaa mbéj gémmiñu duudu da ngay xam lu mu wëlis man waxuma ak waxu politicien yooyu noonu ay politicien ay Sonko du jaay jaay nangam nangam ay waxi naxa sax xandang sénégalais yi na am ñu yeewu quoi télé yi ak rajo yi dafa bëri ñu taxaw di waxte ay tonneau vide lañ dara nawul seen bopp yi nit balaa ngaa dindi dara da ngay xam lan mooy contenu bi ak lan moo ko fa teg boo xamee concept bi ak philosophie bi ak idéologie bi nga doog ko nga doog wax. mënoo ñëw di di wax loo xam ne maîtriser wu seen xalaat la ñu am seen xalaat la ñu am également. waaw seen euh, non mbir mbir mi da nga koy maîtriser nag parce que naat Sonko du jomaay xamoo looy wax. on part de projet Sonko mooy jëlaay wax ñu ay jëmm mbir yi romb na ay jëmm ay xel la maaseel ay xel ay idéologie la idéologie boo nga xam ni Serigne Touba chaque jour dañuy wax ne euh, euh, sëñ Mountakha Mbacké mooy Serigne Touba wala du dëgg. kaa koo ko dégg waaw sëriñ Muntaxa Mbàkke mooy sëriñ Tuubaa léegi day génne ne sëriñ Muntaxa Mbàkke du sëriñ Tuubaa lu tax parce que mouridisme boobu sëriñ Tuubaa bàyyi fi moom la ñëw jël relais bi di ko continuer loolu moo tax ñu naan sëriñ Tuubaa mooy sëriñ Muntaxa mooy sëriñ Tuubaa yàgg nañu wax sëriñ Saliou mooy sëriñ Tuubaa bu keneen ñëwoon tam ñu ne kii mooy sëriñ Tuubaa kon daayo da nga jàpp ni dara seen bopp kon daal da nga jàpp ni da ci boobu les contexte foofu la ko nit ñi war a dugal foofu lañ ko war a dugal pon mi ko créé foofu laa ko dugal. projet question de projet la. nit yi bu ñu xamul dañuy noppi. Lat Diop aussi wax na ko de maîtriser lu bari. Lat Diop aussi wax na ko de. Lat Diop ku mel ni Lat Diop également di cadre Benno des ministres. nee naa la ton ñëpp laa tontu. képp ku xamul lan mooy concept boobu. tey jàng ko mais mais cadre Lat bi loo ci gis. boo amee nag boo amee argument ñëwal ñu jàkkaarloo. cadre Lat Diop loo ci gis moom moom plus loin sax nee na nee na mel nañ jomaay tey ji ñu def ko président mu war a dem ba toog si ay jotaay yu nga xam da koy sekk ak ñoom Poutine ak yu ni mel ça colle ah, ñoom Poutine xanaa Poutine du ancien spermatozoïde wala Poutine yàlla la xanaa Poutine amul yàpp ak deret loolu yooyu ay waxu complexe la du ma ci perte temps <laughs> waxu complexe la ñàkk wóolu sa bopp kan mooy Poutine man sax faale wu ma am Poutine daa nekk yàlla ak yeneen ba ma war a mun a toog ak Poutine di lox wala ma toog ñoom Macron ñu duñ teg maa leen gën ci ndey gën leen ci bàyyi ci fu ma bàyyee ko li li yàlla ressources yi fa yàlla def ci fu ma bàyyee ko en tant que black man ci fu ma bàyyee ko en tant que samay maam xeex xeexkat yuñ doonoon bañkat yuñ doonoon ci fu ma bàyyee ko en tant que sama diine ci fu ma bàyyee ko en tant que ñoom ñi jàpp sangara gi di naan man du ma ko naan ci fu ma bàyyee ko en tant que ñoom ñuy tëddee ay caga di di njaaloo man defuma ko donc maa leen gën ci ndey gën leen ci bàyyi maa leen gën ci lépp man awma seen complexe loolu ay complexe d'infériorité la mhm. noonu daal nga ko jàppe ah mais loolu moo am ah. seen gis-gis bi da nga jàpp ni daal mais loolu Macky Sall complexe boobu mu doonoon mais Macky Sall fu mu taxaw kan moo fu mun ta taxaw Macky Sall taxaw di ñaan blé booy ndaw di ko di ko jànni Ibrahima Koulibaly bu bu bu Burkina naan ko manje tu n'as pas honte devant le blanc ngay tàllal loxo di ñaan blé jóge Afrique c'est paradoxal. d'accord kon daal yow premier ministre Mali bi naan ko yow doo ruus. d'accord mais mais mais mais Mollah ñoo war a taxaw tuuti même bu dul même bu dul ñi ma la limal sax gis nga yow xam naa ne am nga présence lool ci réseaux sociaux yi gis nga depuis un certain temps ñu bëri ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi taxaw. ci li nga xamante ni moom moo di physique apparence Diomaye ni mu softee euh, ak it euh, tolluwaayam ak yu ni mel euh, tu es ak man que yow gis nga yooyu yooyu la gis-gis gis nga ko ko man ni ma ko gisee est-ce que lu ni mel tey ji fi mu toll dafa war a nekk li nga xamante ni dafay compter way laa sax mun na dem ba peser sur la balance non loolu mënu peser sur la balance ñun ñun fi mës am yëpp Diomaye ci dàq Senghor lañ fi njëkk a am Senghor tungu ne la gàtt na ay waxam soof na complexe la foo ko fekk mi ngi mi ngi làkki français jàpp sañ hymne national hymne national monde bi yëpp di lakk seen làkk moom mu jël sañ hymne national def ko français di làkki français complexe gàtt na di di daagu ñu indi fi njool xoddu siggi ñu indi ko fi laccax na yambar na soof na mën na ñu indi fi ab paab ngàttaan muy Ablaye Wade bu ñu jógee ci moom biiru lañ fi indi ponkal pata puuf pata puuf boo xam bu waxee day mel ni ku lokk ay beñey tàng bu góo boolu mu ko dowoon doolu mu ko dowoon o oh, loolu ma ko ñoon ci njokku ci njokku looloo moon wo donc <laughs> ñooñu jomaaye ñoom ñëpp jomaay bu ñu leen boolee multiplier leen par cinquante jomaaye leen dàq gën leen charismatique gën leen nekk booy gën leen coofe yow bu la tegaloon ñoom ñëpp ne la tànnal kenn billaahi jomaay ngay jël. génn waxal sa waxal waxal biir borom biir bu rëy bi pata puuf bi. waxal sa xalaat man man déglu ma fii waxal sa xalaat te bul wax sama xalaat. dama ne yow xam nga ne bu la tegaloon buñ ma tegaloon ñëpp xamoo kan laa ci tànn buñ la waxoon jëlal jomaay nga naan dangeen daw ak moom làq ko foo fu yàqu dul yegg pata yooyu paa yooyu suga daal di yooyu ñii yor ay biir ñii gàtt xasaw ñii ñàng ñii ñii di daagu ñii di di dargu ñii di raasaatu ñii di njool xot bi si gi <laughs> waaye may la ñu jàmm waay. d' accord damaa ci dàq. d' accord alors bu loolu weesoo. bokkul ak ñoom sax. boo leen gën a charismatique. dàq leen gën leen nekk booy. waaye jomaay waay. parlant ah! parlant toujours de Diomaye pourquoi ñuy insister ci moom contrairement aux autres candidats parce que yow mi euh, moom mooy sa candidat euh, barki dem gis nga euh, sortie bi mu def sur Walf TV ñëwaat bu baax a baax ci ponk yu bëri bi ñu ko laajee également à savoir ndax tey ji pare na mu ngir doon président mu ne moom lu nu mel depuis ba conseil constitutionnel validé sa candidature ci la sol boobu leen boobu comme pour dire que ni préparé woon na ci bu baax a baax contrairement ak tamit fi nga daane leen ni Euh, euh, jàpp na ni euh, c'est pas important et que réew mi tey jii fu mu war a jëm loole moo war a gën a soxal sénégalais yi mais bu ñu taxawee d'abord ci keroog sortie bu mu def Walfadjri ban lecture nga ci am. waaw mais dafa dafa dafa noppiloo ñëpp si la gars yi noppee début bi dañ doon ñëw noonu la ñuy def Sénégal moom dafa am ay vampire quoi moo tax ma def ma leen di defal opération rëbb dëmm ndax daa bëri dëmm ñoom lu baax dañ koy jéem lekk Ousmane Sonko la yàlla ñun ñu wàcc seen ŋaam yi dajj seen ŋaam yi wàcc seen bëñ ñu yàbbi ko léegi nag ñu ne jomaay ñoom ñu ñëwaat bu ko warax ñu leen di dóor kaw dëbb moo tax jomaay génnam boobu defar na lépp wan ne leen moo leen gën a dàq jàng gën leen a yeewu gën leen a conscient gën leen a charismatique gën leen am ouverture d'esprit ba pare loxom yi set ñoom ñëpp kenn amu ko ci loxom set musul sàcc un franc bu gën a ndaw Mali ñi mën a def li nga xam ne mooy déclaration de patrimoine bu nga xam ne Amadou Ba tey ñemewu ko donc wane na foofu charismatique wane na borom xam-xam mais wane na souverainisme. wane na amul ay complexe d' infériorité comme ni ko. suñu leader mais déclaration boobu dégg nga fa ni leerale ci société civile bi indi que ni lu nu mel kenn dëxañu ko ci li nga xamante ni moom moo di côté électoral bi balaa ñu jëm ci ab déclaration il faut que ñu prononcer résultat yi ba tabb ab président bu bu bu bees donc déclaration boobu moo invité Amadou Ba jàppoon ni c' était prématuré. no non non non non non. Euh, ay ay affaire donc ñun sénégalais ñoo yàgg ñoo réclamé déclaration de patrimoine ñun du ñuy xar du ñuy bëy constitution gënul nit constitution gënul ñoo maa gën constitution bi yaa gën constitution bi mënuñu yor sañu alal di ko sàcc di ko rawale di def détournement de deniers publics ñun le peuple sénégalais li nga xam ne moom mooy déclaration de patrimoine ñu naan ay constitution bi tëgg ko bu nangam tëgg ko constitution bi ay nit a ko tëgg nit yooyu ñoom ñoo bàyyi foofu constitution bi réclamer la déclaration de patrimoine de Amadou Julde Bayal Ba ñun ñoo ko réclamer ay waxu naxa sax xandak la nañ ñu respecté yàlla nit a ko gënal ci lépp lu mu oh. bind constitution mënul gën nit nit waaye boobule ko boobu boobule constitution boobule constitution bañ ko bindee itam ca nit ñi la war a de la war a dellu donc ndax jàppoon lu numérique war a ñooñu nag ñoo ñëw ñoo respecté bi moo tax wóolatuñ suñu bopp lañu wóolu dañ ne constitution bi dañ koy tëggaat balaa ñu ko tëggaat dama ne nañ def déclaration de patrimoine ñun ñoo ko fi teg mosuñu koo respecté ñoom du tey la ñuy wax nañ respecté constitution bi ñun ñoo ko réclamé le peuple réclame c' est un c' est c' est une demande sociale. mais naka la ñuy defee le peuple réclame la déclaration de patrimoine de Amadou Ba. mais naka lañ koy defee te te te te yëf yi mu ngi en cours. ñu ngi jëm ci tab li nga xamante ni moom moo di président tabaguñ ko mais nañ ko toog xaar buñ ba bu kii nekk. président bu nekkee président boobaa ñu jëm ci ab déclaration de patrimoine mukk Amadou Diouldé Ba du fi am dara tant que deful déclaration de patrimoine ñëpp danañ voté contre du fi am tous 25 pour du ko fi am. ah déedéet dama ne dafa gérer ay. alalu askan. li nga wax ni dafa gérer ay biens publics. mais li nga wax nii dafa waroo déclaration de patrimoine mais li nga wax ni nag li nga naan du fi am tous 25 pour cent sax du ko fi am dafa waroo ak gis-gisu ñenn ñi de ku mel ni Cheikh Yérim Seck jàpp nañ élection premier euh, premier tour lay yem et kii da Amadou Ba moom mooy gagné yooyu la jongante yow nga taxaw naan du am 25 pour cent fa teg loolu et puis keroog maa la dégg sa live nga naan et keroog maa la dégg sa live nga naan euh, jàpp nga ni Amadou Ba stratégie lay teg pour yóbbu gars yi deuxième waaw <laughs> loolu rek loolu lay loolu lay dimbalanteeg Macky Sall pour mu yóbbu affaire yi deuxième tour nee naa ko premier ak deuxième a ci yem moom xam nañ dañ koy dóor troisième du ko jël dama lay expliquer benn affaire yow ñi ngi may wax nii ay xaas bin lañ ay nit ñu dépassé lañ douze ans lañ fi def yàq réew mi ba mu yàq yaxet gars yi am envie changé nga may wax ay waxu Yérim Seck Seck di ma wax ay Madiambal Diagne ak di ma wax ay APR ak sa waay wuy ma ñooñu gu ñu munoon dara dañ fiy bàyyi Macky Sall ñooñu seen seen pexe bu sotti woon Macky Sall la fiy toog kon ñooñu seen pexe sottiwul parce que peuple be taxaw jàmmaarloog ñoom donc ñooñu amul luñ fiy sotti leti nañ xam ni Macky Sall moom di dem du leen fi bàyyi billaahi wallaahi wa taalaahi Macky Sall wa maa ko waat fi ak koori koor Macky Sall di dem du leen fi bàyyi ñoom ñëpp dina leen buub tuuri ca xaj ànd ak ñoom. Ah, kon daal premier tour bi daal ak ak victoire Amadou Ba yow fu mu ne nii gëmoo ko. ak démonstration ak de force bi nga gis yëpp Amadou Ba ci campagne bi yeeg ci région yeeg fu mu munti dem mbooloom bi takk génn wàllu si ko génn euh, dextu ko plutôt da ngaa woor de da ngaa woor de ba kaamil billaahi doo ko waat mbooloo mu takk topp ko yow xanaa gisoo li gis xanaa gisoo li ma gis na gis nga mbooloo ma mbooloo moo xam ni Tamba ay Sidiki Kaba bu booloo ak Mamadou kase ñu dajale fay ay ñooy gars yi def leen yulli wulli tulli ma moom yulli seen poche yi ñu jox leen ñu dem génn ci ma jël ma wax la li ngay wax nii xam nga nii yaa ngi toog ca karadaagee munoo xam ka ñu fay ku ñu fayul bàyyi nit ñi bu ku mobiliser am mobilisation eh, am mbooloo moom nga taxaw di nga taxaw di rube man mi di la jox ay info non mais Mamadou Kassé mobilisé ak mais tu d'accord ak man que ni ñu ñëpp gis nañ ci ay image quand même ay yenn leader ci waa Benno yi réussir ay mobilisation moo laa toi aussi dañoo dajale ay nit jox leen kaar ñooñu ci bëri wax nañoo ak ñoom jox leen tiset jox leen ay pancarte fay leen xaalis ñu ñëw téel leen pancarte ya yuuxu dem ñibbi Sonko junni junni doomu aadama ñoo koy ñoo koy kii te kenn fayu ko ñoom lu ñu yor musuñoo drainer nit dañuy fay léegi nag gars yi ñu ngi leen di def lu ñu naan yulli wulli tulli yulli seen poos yi wulli leen ci bureau de vote yi ba ñuy néew ñu tulli tulli leen outside loolu mooy yulli wulli tulli campagne yi ñu wulli seen poche yi lekk lu ñu yor lu ñu leen jox jël leen bureau de vote yi ñu wulli leen ba lu ñu nuroog nit ba mel ni mbaam tulli leen ñu dem ca xaj. kon même bu ñu nekkee benn même bu ñu nekkee benn kon même bu ñu nekkee benn xàccandoo dóorandoo ba tey gëmoo ni ñoom mun nañu am une victoire éclatante. billahi wallahi wa taalaahi duñ am tous tous maa ko wax. baa xale dina baar billahi wallahi wa taalaahi Amadou Ba du am tous du ko am. ban problème moo am ci diggante bi ci diggante Amadou Ba. ak Ousmane Sonko ak Diomaye fay ba ñu gis ba ñuy doog a génn conférence de presse bi ñu njëkk def euh, gis nga attaque yi nga xamante ni Ousmane Sonko attaqué na ko ki nga xamante ni moom moo di Amadou Ba gis nga tamit ba tey euh, bu ñu taxawee ci janoo bi euh, bi Diomaye fay jano ak suñu mbokk taskatu xabaar yi nekk ca Walfadjri ñëwaat na ci yooyu la kàddu dem sax bañ ko laajee question mu jàpp ni moom buñ ko tegaloon Macky Sall ak kii di Amadou Ba moom Macky lay choisir parce que jàpp na ni Macky Sall mooy nit koo xamante ni lu la bëgg def da la koy def mode face to face euh, du bàyyi ba nga dem mu koy def sa ginnaaw te kii di Amadou Ba baaxawul lu ni mel. waaw Amadou Ba dafa trahir Macky dafa waxoon ne day ànd ak Amadou Ba jàppale ko ci campagne bi mais Macky Sall na dafa ñukk na yàqu bu naqari Amadou Ba amul benn yoon bu mu affiché woog moom Macky xool na saayar ak baatin ñu duma Amadou Ba ba toog ci kawam woo na Amadou Ba wax na ko ko xamal na ko ne dañ lay dóor doo del pouvoir bi. ah bon léegi nag man duma ci takk ñaar du ma yor nguur gi ba pare topp la takk bi rip ak ban ndax door dina la dóor ba toog sa kaw. loolu moo tax Macky Sall bi waxoon ne day doon directeur de campagne am lànk ne du doon directeur de campagne am Amadou Ba di def campagne dem na Macky Sall may ma xaalis ma def campagne mu ne ko un franc du la ko jox dama nga jël ci li nga sàcc def ca. boobu ba léegi Macky Sall musul wax dem leen jàppale Amadou Ba musoo kenn musu la ko tegal audio ay journaliste lañ yor nga baal ma ci terme bi ñooy génn di wax naan Amadou Ba Macky Sall nee na je réitère amul fenn foo leen ko déggee na leen kenn génnal audio. dëgg àndul ak moom tey àndul ak moom mi ngi ne tukk di ko xool. d'accord ndax xam na ni dañ koy duma ba toog. ci kaw waaw d'accord billaahi même buñ ko même buñ ko déggul itam gis nañ président quand mu wane position am ci Amadou Ba. gis nañ ko sax quelque part mu jàpp ne yenn ci ay programme déroulé par certains candidats notamment kii di Diomaye sans le citer euh, lu nu mel euh, dëppoowul ak li nga xamante ni parlons euh, li nga xamante ni moo di monnaie locale bi dëppoowul ak li nga xamante ni moom mi loolee moo fi am beneen pàcc ba également gis nañ fi ñu nga xamante ni dañoo bañoon dès le départ soutenir Diomaye les Thérèse Faye les Fatou Thiam Diazaka et autres gis nañu Macky Sall recevoir leen palais waxtaan ak ñoom ba ñu xëyee la ñu gis Thérèse fay soutien di di di di di manifester son soutien à Amadou Ba les Néné Fatoumata et autres comme pour dire que ni euh, lu ni mel matérialiser nañ ko moo la kon bu ma wax ni ma bu ma wax ni ma non non je veux dire daa saaga Amadou Ba xam nga lu wax gars bu ñu nee mag yi ñu jàppale Amadou Ba ñëw foofu man mun naa la wax réunion boobu dañoo ñëw di ko laaj wax mun nañ mun na leen mun na leen mais bon loolu moom ci yéen en tout cas Amadou Ba c'est le moindre mal nee na Amadou Ba c'est c'est un mal le moindre mal loolu la fa utiliser Amadou Ba c'est le moindre mal maanaam lu bon la mais moo tax ne ñeneen ñu bon ña kon Sénégal yëpp Macky Sall nee na Amadou Ba est le moindre mal c'est un mal maanaam bu dee mango pourri moom mooy mango pourri bu ci gën a tane mais mango pourri la loolu Macky Sall moo ko wax donc ñun dégg nañ wax jooju bu ñu ñëwee di ko ko laaj daf ne leen Amadou Ba c'est le moindre mal léegi nag c'est votre choix mun ngeen ko dem jàppale nangam mais génnul de gars yi jur jur euh, baal ma ci encore terme bi journaliste yi dañ doon wax naan dina dem ci campagne ànd ak Amadou Ba fële ca Kaffrine gisu leen Macky Sall bougé man maa génn kàcc loo leen ne leen c'est pas vrai Macky Sall du dem Kaffrine te du leen topp ñii maa leen ëpp information de. mais campagne bi jeexagul campagne bi mais bi jeexagul à tout moment mun na génn mun na génn ànd ak moom. du dem benn yoon maa la ko wax du fa teg tànk campagne ba jaar na suba ginnaaw suba jaar na do lijjantiwul Amadou Ba déggoo ma ne la Macky sàll wax na Amadou Ba dinañ la duma ba toog sa kaw. te nag ne Sénégalais yi dégg nii Macky Sall nee na lu yëpp defu ne woon na Amadou Ba dinaa doon sa directeur campagne defu ko comme ni Sonko doonee directeur de campagne. bu jomaay ànd ak moom di ko jàppale vraiment gor la gaar bi la musu koo bàyyi mais Amadou Ba Macky Sall ñu la ko def lu mu ko wax defalu ko ko dafa wax dañoo wax ndakay jox xaalis joxu ko ko bu ñu ñëwee di ko laaj daf ne c'est le moindre mal ñëpp ñu doo ànd ak Amadou Ba newoon ci gouvernement bi dàq na leen amul benn doomu aadama bu réclamé ne Amadou Ba la àndal Macky Sall bàyyi ko ñoom ñëpp la buub tuuri loolu am na lu muy bu vous n'avez pas compris ba pare bu ñu ñëwee daf ne c'est moindre mal kon Sénégal attention. lan la ñu war a comprendre Macky Sall nee lan la ñu war a comprendre foofu kon yow da nga euh, bokk si ñu jàpp jàppandi ba tey gittal na ko malgré lui. très bien jiital na ko malgré lui parce que le moindre mal maanaam moo moo tane ci ñu bon ñi ay samay nit moo tane ci ñu bon ñi. Amadou Ba nag loolu lay def. Ah, mais sa la mii kër la. mais su jàppee ni tur boobu moo tax booy souvent. da nga di dégg samay laaj ma koy wax. mais dara la. nii kër la. mais li nga wax nii day màcc mais li nga wax nii bu dee dëgg la Macky loolu la jàpp kay kon kay normal na mu jàppale ko bu jàppee ni c'est le moyen mal kay kon kay li gën a logique mooy mu jàppale ko. Oh, mënu ko jàppale parce que Amadou Ba toog na fi di jëw Macky Sall Macky Sall déglu dégg na audio yooyu moo tax Macky bàyyi ko de yéen yëgu leen lu xew de Amadou Ba loolu lañ dagg ci tuuti audio yooyu di leen ko woon ba muy ba muy jëw Macky Sall am benn leader politique bu bokk ci ñoom bu ñëw ne ma mais moo la kan moo dul jëwaate ñoom xam nga yëg nañ jëw kan moo dul jëwaate kan moo toogul di jëw nit ma ne ko waaw loolu kay dëgg la ma ah mi ngi noonu fii kuñ fi gis am na ku ko jëw Amadou Ba da doon jëw rek ñu jàpp ko ki ko enregistré kay moom moomu nangam nag te leader la leader ponkalum leader. kan la beneen leader ñëwaat ci ñoom ñëwaat na ma mais Mollah ñun de ñu ngi investir def nañ xaalis bu bari xaw ma nag ba xam gars yi dañ ñuy trahir wala du ñu trahir maanaam ñoom malgré joxe nañ xaalis benn leader bu mag ci benn région jël ay millions joxe fa gars yi na ko encaissé ko dóor dem ñëw. taxaw ci manifestation bi taxaw ci meeting bi dem seen yoon ci guddi gi fajar la ma woo di ma wax loolu na ah gars yi de jël nañ suñu xaalis ak yooyu de mais xanaa yàlla ñu yàlla dimbale rek ñu bañ ñu trahir bañ ñu bañ a def lu ñuy kii en tout cas li ñu gis ci nit moom bari na moom mais dañ leen a fay léegi nag problème bi mooy est-ce que ñooñu après dinañ dem votel ñu billahi wallahi barke alxuraanu karim ak leader politique moom wax loolu d'accord mais ba tey waxoo ma lan moo d'accord mais ba tey waxoo ma lan moo waral bi Diomaye ak Ousmane Sonko génnee ci kaso bi ñu gis ni Ousmane Sonko a été que ni diggante ak combat am ak Macky jeex na dem sax ba ni jeex na ba Macky Sall waxee ni buggul utaat beneen ñetteelu mandat depuis boobu ñu gis ni seen attaque yëpp dañ ko orienté ci Amadou Ba serait-ce parce que Amadou Ba jàpp nañ ni danger la pour ñoom wala lan la lan lañ découvrir ci moom peut-être ci diggante bi lu nga xamante ni xamuñu ko woon ah non yow nag xam nga ko Amadou Ba Sonko xam na ko bu baax Diomaye xam na ko ñoo nekkoon di liggéey mi ngi mel ni yow sa sa technicien yi macha allah ñoom ñëpp xam nañ la xam nga leen xam nañ la. ñoom Seydina ñoom Issa. xam nañ li nga bañ xam nañ li nga maîtrise sa technicien yi xam. fu ne ni ku la soxla sa technicien yi lay ñaan wax ko yow ne penda nii nii la mel donc ñooñu xamante nañ ñoo ñoo yàgg dëkk ñoo yàgg liggéey. Sonko li mu wax c'est tout à fait vrai Macky Sall day dem. mais mais li mu fi def mi fi taaju. mais yàgg nañ ko xam est que dañoo soxla campagne di wax. mais mais mais c'est-à-dire yàgg nañu xam Amadou Ba ni mu mel pourquoi ñu bàyyi ba tey di ko doog a wax. Amadou Ba mais dafa ñëw pour tenter <laughs> doon président bu fekkee ni yàggul bëggul doon président kay loolu amul problème mais bu mu ñëwee ne dafa bëgg a jiite réew. kaay xamal ni kii mesdere la mii kër la. te sàcc la loolu gaa yi gis nañ Amadou Ba man man avant Sonko di wax ci Amadou Ba sax man avant Sonko di wax ci Amadou Ba wax naa ci <laughs> ñaata yoon laa wax ci Amadou Ba man xam na Amadou Ba mi kër la loolu bu ma koy wax du léegi Amadou Ba moo tax man la moo tax ma la bu ma gisee fi ngeen accès yëpp seen combat jëmale ko ci Amadou Ba on a comme l'impression que ni xam nga ni Amadou Ba leen de tiital na leen et que que yeneen candidat yi ñu ngi fi nag yeneen Ba poids poids la quoi poids plume la wax ñu keneen <laughs> wax ñu keneen Amadou Ba plus Macky Sall sax ñoo leen mën mais poids plume bi nga xamante ni tout temps seen combat da ko da ko accès ci moom mais c'est normal moom moo fi nekk. yeneen candidats yi nag certes ci opposition bi lañ nekk mais ba tey ay candidats la ñu ñoom ak Diomaye ñoo bokk bëgg-bëgg. dama ne. oui ñoom bi sax ñun la ñuy waxal ñun ñëpp ñun lañ ragal Pastef la ñëpp ragal Amadou Ba Pastef lay wax opposition bi démb déng gis nga ndaw sax mais may sax wul sa tudd turam. ndaw san Sonko wax képp ku taxaw Sonko la wax ak Sonko Diomaye ñoo fi nekk Sonko ak Diomaye ñoo fi nekk. <laughs> ñoo nekk ci kaw oto bu jiitu ci kaw du corné oto yi nekk ci ginnaaw ñooy corné ñëpp contre Sonko la tous ñëpp contre ñun la. alors tout sax ñu ngi doon jot. benn xibaar que ni euh, Habib Sy dafa rallier euh, dafa sursoir à sa candidature pour rallier la coalition Diomaye mais lu ñu mel euh, ñu ne conseil constitutionnel. daf ko ko bañal daf ko gàntal daal maanaam ci boobu lay bëgg-bëgg fu mu nekk nii daal moom day woyal kon li nga xamante ni moom moo di programme moom en tant que candidat sa gis-gis. kookan la. Habib Sy. koo wax nga rek. ma ni Habib Sy. sànq dafa ah. dafa renoncé woon à sa candidature fekk si ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Tidiane Dieye pour ñu jàppale kii di Diomaye mais lu ñu mel moom conseil constitutionnel àndu ci ak moom daf ko ko bañal. daf ko ko bañal mu nangul ko Cheikh waaw. ah waaw <laughs> léegi laaj ko ba dafa am benn loi boo xam ne day day nangul Cheikh Tidiane Dièye bañal ko Habib Sy <laughs> loolu war xeetu conseil constitutionnel la vraiment Sénégal dafa ruslu quoi institution yi biir buy daw na institution yi ay biir buy daw ay biir bu tàññe kenn xamul lan la man des fois damay xool damay xool ni muy doxee de j'ai honte même d'être un Sénégalais quoi Ah, constitution tey ngaa bañ euh, ay euh, conseil constitution ñuy taxaw benn loi boo xam dañuy nangul ki nga xam ne kii nga xam ni moom mooy Cheikh di Dieye nangul ko ay mbir loolu <laughs> même loi bi nangul ko Habib Sy <laughs> yii yii nañ ko yii ay waxtaanu biiru kër la nañ koy wax ci biir kër parce que tubaab bi bu ñu déggee dañu rus de certainement après dinañu certainement certainement dinañu gën a indil ay firnde lu motiver euh, li nga xamante ni moom moo di seen refus. <laughs> nangul nañ ko Cheikh Tidiane Dièye ah. waaw bu Cheikh Tidiane bi de depuis démb ba tey moom dégguñu ñu wax ci dara mais bu Habib Sy bi tout à l'heure moom gàntal nañ ko moom. ah mais nangul nañ ko Cheikh Tidiane Dièye laa laaj. lan nga bëgg lan nga bëgg lan nga bëgg indi foofu. ci balance bi. oui maa lay dégg. non dem. man maa ngi lay dégg bu baax nangul nañ ko que nangul nañ ko. ko ko. après nangul luñ ko Habib Sy. nangul luñ ko Habib Sy. d'accord loi bi dafa am ay tur ak ay ay ay sant yu. lu ni mel ne avancé. bàyyi bàyyi ma lay laaj sama question a ñu avancé te yow yaay définir bu ñuy avancé bu ñu dul avancé génn ci yi nga ne. waaw ah, allez dama ni parlant toujours de Diomaye dañ ko dégg keroog euh, muy wax ci li nga xamante ni euh, moom moo di euh, ginnaaw bu mu lancé kii di Amadou Ba ni ko na déclaré patrimoine am loolu wax nañ ci ba pare riposte également dafa am ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di cellule de communication bu Amadou Ba euh, ñu ne kii di Diomaye Faye na njëkk def moom euh, retracé li nga xamante ni moom moo di parcours am na wax nit ñi sénégalais yi ci li nga xamante ni am na ko cib jaar-jaar laata muy demandé à Ba mu déclaré li nga xamante ni moom moo di patrimoine am jàpp nga ni boo nangulee ni euh, dëgg la Amadou Ba dafa war a déclaré patrimoine am moom Diomaye itam war na leen nangul ñoomee cellule de combat lañ ko tontu ci bataaxal baal ci yaa xam naa ne dafa am peut-être lu urgent lu am ci réew mi euh, loolu moo tax ñi accéléré di ma woo rek mooy dagg affaire yi quoi. Hmm. xam naa yëguñu lu xew. Ah waaw gis nga ñi ngi ne ojo certainement affaire Habib bi nga xam ne ñi ngi ci biir pale beek ñi ngi partout Sénégal. Hmm. kenn ci ñoom ñi ngi accéléré nu woon presque quarante fois bëgg na ma jox information xam naa am na lu xew wala luy waaj a xew. non mais nañu may tuuti rek parce que ñun waa ñun euh, léegi ñu daaneel bu la ca mayee dara itam boo paree rek bu laagee ñu daal di ciy ñëwaat euh, ci yeneen i ci yeneen i gis-gis. oui. gis naa ko muy insister coupé naa ba sonn mais lu muy insister ça montre am na luy xew lu nar a xew ko lu nar a xew. waaw ah, mais du gis naa mu yónnee mu audio tamit mais lu ci am rek incha allah dinañ ci wax. lu nar a xew ah, kenn ci ñi informé. lu wax rek mooy euh, bu fekkee dëkk yi man nag man bu may wax damay wax ci ci yoon ci dëkk lan mooy développement ci dëkk dem ci dëkk yu am développement nan la ñuy développé woo ay modèle de développement cest dire man du ma waxee waxu euh, ras terre quoi. sama débat lu tax mu intéressant du débat ras de terre du ay débat ndax sa xandang du ay débat caaxaan. yow da nga bëgg xam-xam laay wax da nga bëgg garaaw garaaw man ni da bëgg garaaw garaawlu naan du ma wax ay débat ndax. mais dama garaaw nag non dama parce que man bëgguma man bëgguma perte sama temps ci débat yenn sénégalais yi ñuy def débat ras de terre quoi yoo xam ne ay kii waroo ko voteel parce que karaw gi daa bari xoola ki dafa gàtt ki daa njool xam nga yooyu tamit ku fekk ma ciy débat. mooy wane ni sama expérience bi ma am jàng bi ma am lecture bi ma am voyage yi ma am ma njëriñ vraiment ma fekkee ay sénégalais yi yuy yuy débat ay Ibrahima Fall yi dafa am afro waaye ki nan la mën a président yow bopp fees jàll ki karaw ay po ma Abdoulaye Wade ndel la def ay waaye ndel bopp amul karaw nan la mën a yoree réew waxi dof yooyu mm, duma ci débat sincèrement ça day wane ni man vraiment sama jàng amuluma njëriñ samay voyage amuluñ ma njëriñ. mais mais tontu moo tax ma ne la bu bugguma di waxtaanee waxtaanu vraiment ba ba étage yooyu. mais tontu ki sama laaj. ci ñoom euh, ci communiqué bi. la ñu tontu ñoom ci communiqué bi c'est important. waaw waaw sànq rek. oui déjà am na contradiction bu grave bu am. muy ban. bu ñu wax waxu déclaration de patrimoine nga ne ay conseil constitutionnel nee nañ loolu nekkul nangam te te nga demaat balaa ñoo pare. ñaari minutes nga waxuma la bëgg na bàyyi. mais waxuma la waxuma la conseil constitutionnel de non non keneen bàyyi na démb. déet bu ma wax ma wax nag waxuma la conseil constitutionnel. day wane ni rek dama ni la dama la ñenn ñu bokk ci société civile bi. pour na citer kii dama ni la ñenn ñu bokk ci société civile bi. pour ne pas citer ku mel ni euh, Moundiaye Cissé dégg nañ ko clairement mu mm. indi ay ay ay leeral ci wàllu mu ni mel. ni pour nga def sa déclaration de patrimoine il faut d'abord que nga gagné ñu po ñu ñu ñu ñu ñu porté la ci li nga xamante ni moom moo di si boppu réew mi loolu laa la wax waaye waxoon na ah, conseil constitutionnel tontu ko tontu naa ko nee ko lii c'est une demande sociale oui c'est une demande sociale waaw léegi moo tax man tamit ma laajaal ni la am nga droit boobu moo tax ma laaj la ni la comme que jàpp nga ni loolu c'est une demande sociale réplique bi nga xamante oui réplique bi nga xamante ni ñoom également cellule de com bu Amadou Ba apporté nañ ko également jàppoon ni loolu également c'est une demande sociale waaw yow cellule de com Amadou Ba ngay wax ñun le peuple man je fais partie du peuple mais yow bëgg nga xam ku lay jiite mais ñoom aussi mais ñoom aussi ci peuple bi lañ bokk lan ngay wax nii Penda oui non mais peuple bi mooy suprême benn parti politique yow ci peuple bi nga bokk say technicien si peuple bi bokk. mais yow kan moo wax ne Amadou Ba dafa a kan moo wax ne Amadou Ba dafa kan war kan moo wax fii Amadou dafa war a déclarer li nga xamante ni moom moo di patrimoine am du Jomaay Faye. déedéet man maa ko wax. man ci Jomaay laa ko déggee nag ma laaj la ko. du Jomaay de man maa ko kon yow doo suivre live yi. et puis ba tey lu ñu wax nga ni. Jomaay dana ko man maa ne déclaré. Jomaay moo dégg li ma wax xam ne lii mooy dëgg. mu wax li ma wax ba ma defaat live di ko remercier ne merci Diomaye au moins il écoute ba pare di appliquer Diomaye nekk na nit boo xam ne kon kii bu bu fal woon dina déglu askanam. d'accord mais ba tey yéen ñaar man maa réclamé loolu. mais ba tey yéen ñaar d'accord mais ba tey yéen ñaar. ci peuple bi ngeen bokk te comme ni nga ko waxee dangeen ngeen ko réclamer au nom du peuple ñoom ña bind ci. comité yow sax yow bëgg ñoom ñoom ñoo xaar man fi yow ku lay jiite nga xam ñaata la lan la yor balaa mu laa jiite. effectivement bëgg naa ko bëgg naa ko te loolu mooy yoon. loolu loolu mooy yoon mais dama la ki toftal tamit ni la ñoom it la ñu tontu ni Diomaye na retracé d' abord li nga xamante ni moom moo di parcours am ma laaj la ci yow. Diomaye kat Diomaye da euh, daa jàng jaar université fii Amadou Ba jaar jàng am diplôme. dagg euh, concours ENA Amadou Ba jaar concours ENA dagg ko jomaay nekkul di politique di mar ginnaaw di mar bagage su baax gaa yi donc bu mu ñëwee inspecteur impôt domaine la toog di liggéey sàcc foofu fukki dërëm kële nag di mar ñu def ko ministre di mar di màcc bagage su yi nit ñu def ko ministre des affaires étrangères muy Maraka Mac ñu def ko ministre lu euh, euh, euh, mu tudd di di finance di macc di mar ñu ñu dox ko budget di macc di mar ñu dàq ko di macc di mar dañu def ko ministre kon loolu lépp ay poste ay poste politique la mais pour rappel nekkuloo ci sa live sa baat yi ngay wax dara déglu ma nekkuloo ci sa live mar macc laa wax de mar macc waa déglu sa sa terme yooyu ngay wax te ko ba ngay def sa live du dëgg bu ko wax fii sama antenne bi Sénégal waa mais bëgguma nga employé yooyu terme mais mais bëgguma nga employé yooyu terme ci ci ci weeru koor lañ nekk. di barki eh, màcc. dama koy tere di kii. ajo dem. Pape Djibril Fall également invité na kii di Bassirou Diomaye Faye ci ab débat d'idées. mu ne. ma ni. Pape Djibril Fall également invité na Bassirou Diomaye Faye ci ab débat d'idées dama ne Pape Djibril <laughs> Pape bës lay wër quoi parce que comme Diomaye tocc bi town bi Diomaye da ko talul sax Diomaye askan ñoo ko soxla bu génnee gars yi màbb Pape Djibril vraiment bu fekkoon <laughs> li Diomaye fi Diomaye taxaw fa la taxaw kon heure bi tal du talu débat mais comme daa wër kenn topp ko mu lamb late mu ne xaaral ma ñëw wooyee débat mais jomaay moom talul loolu jomaay yabuñu sax Sénégal ak ni ñuy xaaree jomaay jomaay di duggu def campagne di wër di ko xaar mu bàyyi foofu ñukk naan day dem di débat ak Pape Djibril Fall. mais pourquoi pas Pape Djibril Fall da la am fit yow mii. mais pourquoi pas ñoom ñaar dañoo ni yow la meloon. ñoom ñaar dañoo jamonante. ñoom ñaar dañoo jamonante war nañu war a mën a sekk waxtaan ku ne indi xalaatam teg sur la table. na dem na dem wax waxam rek soxlawul ay ay ay ay sekk waxtaan na dem wax waxam. dana wax xam vraiment aw jomaay amul jot nee ko jomaay amul jot Pape Djibril Fall dalaa ëpp fit nii yoo la meloon gënu la doon journaliste de ci plateau yi la doon toog di ratatati ratatati am ñu koy jay rek mu jug dugg ci affaire yi suba sax war ngaa dugg ci affaire yi yow xawma looy xaar sa morom yëpp ngi dem ci politique ba Pape Djibril Fall dalaa ëpp fit rek doo dugg dugg ci yaa ko mun foofu yow laay xaar boo ñibboo yow laay ñibbisee soo ñibbisee rek incha allah ñu ñu ñu ma nekk. ah oui ma ñibbisee foog ñu dugg ah, foog ñu dugg seen cartable commencé wutal ma kos karawaat yi saf ak ay siiraas dàll ñu commencé teg ko ci ñun tamit. te ngay ñibbi sax yow man a yow bañ doon waxtaan temps avril nga ma joxoon délai. xew. ca kas bi moom boobu ba tey gaa yaa ngi koy. xaar gars yi ñu ngi si beneen renseignement yi duggaat na beneen renseignement yi. kon renseignement yi ñoom ñoo lay jox xibaar. yàlla lay jàmm waay. sama waa ji yaa taxaw nag. ma ni sa càkkas bi booba tey gaa yi koy xaar. bin bi waaw xam nga élection dañ ko reporté. c'est normal fi ñuy daanele parce que fii nii sax waxtu dogu léegi mu jot euh, ñaari laaj rek ñu. tënk li nga xamante ne man càkkas bin bin bi. ngeen càkkas bin bin bi laax la laax bi laaxu lan. waaw waaw vas dégguma la ni nga doon daanelee nga ni cakas bin bin bi lan. ma ne cakas bin bin bi incha allah après élection yi bu jomaay jëlee soobee yàlla dina ñëw dinañ cakas bin. te loolu maa la ko promettre dina am cakas bin bin incha allah et ce sera avec le président. Diomaye Faye le cinquième président de la République du Sénégal. incha allah d' accord alors keroog. takkal téere ndax daggal li ma la wax te d'accord euh, keroog Ousmane Sonko wax na euh, ba jëm ci conseil constitutionnel euh, jàpp ni war nañu war a mun a fexe ba nu ñu sécuriser li nga xamante ni moom moo di vote bi ñu jëm ci nag ni ki dimanche ginnaaw wàcci suba tey ji ban taxawaay lañ ci war a am rawatina ñoom parti politique yi nga xamante ni ñoom ñoo ko nekk ci bureau de vote yi itam da nga fay yónnee sa la ñu war am ñoom a sécuriser dëgg li nga xamante ni moom moo di vote bi mu méngoo ak ni ko Ousmane Ousmane Sonko alerté. waaye yaakaar naa ni incha allah même Ousmane Sonko euh, bu ñu paree campagne yi dina génn dina def live dina wax ak askan wi yëpp. Euh, dinañ récapituler aussi campagne électorale bi dina wax ak ñoom tam taxawaay bu ñu war a taxawee. Mhm. incha allah euh, peuple sénégalais bi dinañ sécuriser seen vote dinañ taxaw dinañ ko dinañ ko fas yéene saytu dinañ ko fas yéene mhm. malgré que bëri ay couac bëri na euh, euh, euh, processus électoral bi est biaisé ñoom ñu ngi def lu ne pour sàcc élection yi mais mënuñu ko yora benn écart bu énormissime incha allah ñun taxaw nañ ñu ngi def defar ay cellules de surveillance pour taxaw fas yéene jàmmaarloo képp ki nga xam ni da ngaa jóg pour sàcc suñu élection wala da ngaa jóg pour na da ngay def lu ñu naan transfert de d'électeurs wala ay bourrage d'urne wala ay bureau fictif comme ni ñu koy waxee ñun pare nañu à toute éventualité te incha allah lu ngeen fa gis rek wala dégg xam leen ni ñun la bu soobee yàlla. ñu nangu kenn kuy hold up suñuy élection kenn kuy accaparer suñu suffrage universel euh, euh, exprimé loolu pare nañ pour jaay la suñu bakkan bu soobee yàlla. incha allah te ñu ngi artu ki nga xam ne mooy ministre de l' di artu ki nga xam ne mooy Macky Sall di artu ki nga xam ne mooy Amadou Julde Bayal Ba borom ñaari jabar yi di ko artu di leen xamal ni euh, incha allah doo leen sàcc suñu élection te doo leen fi jëlee suñu élection te doo leen fi hold suñu élection. pare nañ nag ñu ne ngeen dee ba faw wala dund. di ngeen fi bàyyi suñuy. mais ndax élection incha allah et Diomaye Faye sera le cinquième président de mais ndax réew mi fu mu toll nii jàpp nga ni sàccu élection dina fi yomb. ah mais yow bureau xanaa gisoo fichier électoral bi ñaata bureau fictif lañ fi def ñaata transfert de de de dinaa ci def live incha allah di nga xool damay ubbi damay ubbi ligne bi. am na nit yoo xam ni dañoo am ay bureau de vote tel ñu jël leen yóbbu leen ay ay région sànni leen ci région yi est-ce que ça c'est normal bu ñu demee di vérifier dañoo gis ni jëlee nañ leen seen bureau de vote Dakar yóbbu leen ay xom ay relaaw loolu lépp dana ci def live la nga xam dinañ ko ubbi ligne bi gars yi di wax problème yu ñu am parce que ñoom mënuñu ñu sàcc ay fu dëkk bi toll ay élection yu ñu sàcc Macky Sall sàcc élection yi deux mille dix neuf ngeen ñu ay waxu ay élection kenn mënu ko sàcc xanaa loolu da ngeen di nalaw Sénégal nga xam ne lépp sàcc la nga naan waaye mënuñu fi sàcc pale sax dañ fay sàcc pale sax dañ fay sàcc pale sax am nay sàcc ñu ngi jot ab euh, communiqué euh, bo fu seede yàlla d'accord Sénégal fu fu la am na sàcc kon eh, eh, élection mënuñu si sàcc. d'accord euh, ñu jàllale waale information. yi ab communiqué bu jugu ci ministère de l'intérieur. Euh, di xam le ni élection yi nga xamante ni daal fas yéene na am ni ki dimanche 24 mars tax na daal ba circulation bi interrégion euh, oto yi ci war a dem yooyu yëpp ñi ngi xam le ni dañ koy dakkal sur toute l'étendue du territoire national. toutefois nag à titre exceptionnel autorisation de circuler mun nañ ko délivrer. mu jugee ci ministre de l' intérieur ak it ci yenn ci ay gouverneurs yi nekk ci région yi euh, ci pour oto yi nga xamante ni dañuy jugee ci région di dem ci benn région loolee mu nekk communiqué bu jugee ci ministère de l' intérieur moo laa nag fi may daanalee ak yow euh, dama bëgg nga ñëw ak ñoon tuuti euh, ci ab anecdote boo ñu mën a may ci sa diggante ak kilifa pourquoi parce que kilifa Euh, kenn ki suñu ay chroniqueur la bokk fii ci suñu ay émission phare yu mel ni comme émission bi di salaam euh, ramadan tey loo ñu mën a wax ci kilifa ak tey boo koy took di ko suivre de loin muy apporter euh, ay chroniques yu am solo di joxe xalaatam ci réew mi noo ko gisee. waaw <laughs> ah, kilifa moom xam-xam la. il faut la nit bu baax la nit bu <laughs> retaan la kii dafa moom foo ñu fekk man ak moom da ngay da xàqataay ba xalagu vraiment foo ñu fekk man ak moom dañu am sañuy jàpp quoi dañu dañu am sañuy dañu am sañuy feeling daal dañu am sañuy affaire ay ay mbóot ay <laughs> waaye moo wax la waay non mbóot yooyu laa bëgg nga may ma ci ndax dama bëgg li nga wax nii dama bëgg bu toogee Salam Ramadan euh, Djiby Sarr Dioni dagg ci extrait boobu tegale ko ko mu seetaan <laughs> nee ko adré guye rek nee ko adré guye lii loolu. Fall Fall mais Fall Adrien Guèye sama laa laa yem nee naa Adrien rek nee ko Adrien Guèye. mais loolu mais loolu ñu ñuy si temps il faut nga tekki ñu ko bëgg nañ xam lan la. moom dina la ko tekki histoire la. d'accord Adrien Guèye. ci sa wàllu bopp nag. non yàlla rek. Euh, euh, kii bi fu mu toll single bi man foogoon naa sax ak campagne bi euh, single bi accompagné Diomaye ci caravane bi man defoon naa ne yaa koy way. am kilifa mooy sama recto verso Malal ak ñagas ñu mel man ak kilifa noonu lañ mel mooy sama recto verso pièce bi la nag dëpp nii rek boo dëppee nii bii bii kilifa la nga dëpp bee bee man la. ben bon comme euh, comme li nga wax ni euh, voilà quoi ba euh, ah, woon de loo waxati. mën naa ni single bi foogoon naa ni way bii nga xamante ni moom la yi naroon. Euh, ah sama salaan bi ok. mu fas yéene woon ko accompagner non je veux way bi naroon clip bi bu mujjee woon accompagner Diomaye ci caravane bi man foogoon naa ni yow yaa koy way. waaw euh, bo c'est vrai mais euh, benn instant ñun ñun rappeurs yi mun nañ soutenir mais euh, en fait concept wala mun naa ne philosophie hip hop qui est une musique de rue mayewul ngay chanter ay louange nit quoi moo tax un moment donné mun nañ ci live mun nañ freestyle mais musique hip hop bu ñuy def def ñu tënk mënuñu di woy ay maamu jàmbur quoi ñu woy comme ni ko mbalax maa di defee ñoom seen musique musique bi noonu lañ ko euh, façonné ñoom noonu lañ defaree seen musique mais ñun suñu musique musique bu mbedd la musique bu war a teewal baadoola yi donc euh, amuñu droit di tagg euh, wala di wala di yëkkati ay nit di leen valeur jël benn valeur ñe nangam ak nangam loolu lépp ñun hip hop daf ñu koy tere ba pare rawatina aussi dafay nekk li nga xam ni euh, boo seetloo hip hop Sénégal euh, sur quatre vingt dix neuf pour cent doo gis kuy à part critiquer doo gis kuy jàpp ay di tag di taggaate quoi ay góor gi doy yaa ñu doy wala nangam nangam xam nga wala góor gi doyalu ñu euh, looy dégg moom mooy ay na dem a dem a dem ay na fi jógee ay saba pété ay donc ñun noonu la hip hop bindoo quoi. donc di. mais Queen Biz rappeuse moom euh, rappeuse la woon à son début. à ses débuts te tey te tey gis nañ ko gis nañ ko mu woy Diomaye fay waaw da ngaa tontu tontu nga. déggoo sa bopp wala. maa lay dégg nga ni. da nga ne Queen Biz woon à ses dégg nañ ko mu woy kon léegi nekkatu ko rappeuse la woon. kon nekkatu ko léegi mbalax women la mi ngi koy def mi ngi koy def normalement et naturellement te macha allah mën na ko xam na ko voilà et puis ñu ngi ko ci félicité di ko ñaanal mais ñun rappeurs yi la ax yow yaa ngi naan et pourtant yow yaa ngi naan doo def lool pourtant fii nga fi woyoon woy bu neex ba jibi saa di ma woyal sonko ko song sànq ak beneen bi nga naan euh, Diomaye fay la waay kon kay benn la rek mënoon nga def loolu yëpp dëxañ ko ci singal bi ay sang bi ma bind la fii nga fi ko songu sangu. loolu refrain bi la. sonko ku ko songu sangu sonko ku ko songu sangu sonko ak a sax faral. sonko a neex dama ko bind. il est temps suñu il est am leader bu éloquent éloquent pati. loolu sound la ña dama ko xotti. waaw lu tax nga xotti ko amul droit di woyaate di woy nit. ah mais ba nga koy mais ba nga koy bind xanaa xanaa xanaa da nga fàtte woon ne amoo droit woyaate bind ko pare xotti ko. mu am non que non non la yu ñëw sama bopp normal la naa ko bind mais waruma ko dem di ko def ci ay studio def sound génne ko. d'accord alors waruma. Mollah xam nga Drizzy Bàkki Drizzy influenceur. imagine toi suba. suba ma def loolu après mu am ñaan ñu ko yàlla le contraire am est-ce que dinaa mun a taxawaat naan di wax xëy na bu boobaa dañ ma tagal sama way na ma ah, yow yaa ko fi wayoor yaa fi lii yaa fi laa yaa fi nangam ak nangam donc euh, en tout cas li ma lay mën a xamalaa mooy ñun suñu musique hip hop rap mm. du tàggaate du tagg ay mba ay ay maamu d'accord alors waxtu bi jeex na euh, ma lay bàyyi nga tàggatoo la mot la fin wax dëgg neex yàlla ça a été un plaisir euh, yow sama xarit nga sama frère nga mais dama bëgg tamit tàggatoo bi nga boole ci nuyuwaale sa benn soppee di itam e-, sama xarit muy Bathie Drizzy di influenceur bu mag moom ngay seen souvent ay texte am ñuy def hashtag Drizzy moom dalay bëggee bu baax a mm-hmm. baax nuyul ma ko. peut suivre aussi c'est un artiste ah. Ouais. c'est un artiste plein plein plein. Ouais. et que voilà maa ngi gis fan yii passé mu ne def na un an de mariage. oui yàlla na fêté mille ans de mariage. amiin amiin amiin amiin ak njaboot gu barkeel. amiin yàlla na ko yàlla sàmm. Mm. nit ku baax la di féliciter di béggee aussi say techniciens et techniciennes. Mm-hmm. Euh, kontaan naa ci ñoom seen taxawaay rafet na mm-hmm. di leen jox euh, di leen show love di leen wax much love and thanks kontaan naa ci ñoom. yow moom xam nga sama sama gaañ nga sama xarit nga sama lépp nga sama genn wàll sama sonn la nga tamit aussi. Mm. voilà <laughs> donc bu may bu may nalaw yaa ma yee bu may toogee yaa ma loqati bu ma làq toog nga loqati ma génne yow daal yaa mën ci man lu ne xaw ma nag foo ma jaar <laughs> buteewoo bute buteeloo ma xaw ma but nag maa buteel xaw ma nag maa suur <laughs> suuru. sama xarit daal mun naa Eh, dafa mel ni danga maa jekku daal hmm, boole ki tamit ni ma lay recadré des fois nga wax dara wax tojaange ma woo la xam nga man dama dul déglu rek waaye des fois nga wax tojaange ma woo la ni la waroo wax lii wala waroo kaa ci kii wala waroo live di mais dama déglu te samay xarit rek ngay nekk di kaa ci <laughs> internet bi xam nga da nga da nga doy waar da nga doy waar <laughs> eh, voilà quoi <laughs> voilà mais quand même maa lay bëgg maa la gën a kontaan sa liggéey sa liggéey rafet na hmm. sa liggéey rafet na maa la ci port di la wax ni vraiment ñëpp dañ lay suivre man a yow nag da ngaa yàkkamti rek mais nee naa la bàyyil ba ma ñëw bàyyil ba ma ñëw après cakas bin bin bi yow laay njëkk a jox exclusivité. <laughs> non jéem loolu dafa mais xam naa il faut nga rek dugal ma ci bagage yi. xaaral maa ngi ñëw dinañ fi toj. rajax maa ngi lay xaar incha allah <laughs> donc ça a été un plaisir donc di leen remercier ñi nga xamante ne également. yéen sa saa su ne suñu ay programme yu Sénégal 7 TV nii la ñu mel ak yéen donc ni ñu fiy dalalee invité yu nekk fii ci biir réew mi di am seen gis-gis noonu également lañ koy defee ak yeneen doomi réew mi nekk ci bitim réew ñoom it également am pàcc bu rëy lool ci réew mi donte ni xëj na souvent nañu koy defee mun na bañ a neex ñenn ñi waaye terewul doomu réew mi la donc également am na solo bu actualité bi tollee fii ñu jokkook moom am ci li nga xamante ni moom moo di gis-gisam pour votre plaisir di remercier également la régie Ismaïla ak Issa euh, ci liggéey boo am solo bi maa fi euh, tuuti euh, Djibisar Johnny pour la coordination la rédaction de Sénégal 7 ñoom Malick maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ak it Lalla di ko ziar moom également yéen ñi nga xamante ni saa su ne également yéen a ngi safoo di leen remercier te di leen jox dig daje ci yeneen i plateau jërë ngeen jëf